mbokk yi ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu ku ci ne foo mënti ci uh, àddina bi uh, kon tey dañoo fas yéene seq waxtaan ak ki nga xam ni mooy Amadou Sylla Amadou Sylla nag uh, mooy ki jiite SOS Casamance muy ab association boo xam ni dafay xeex ci li jëm lépp lu jëm ci jàmmi Casamance waaye itam lépp luy suqali Casamance ba tax na actualité oblige tey ji ñu fas yéene seq ak moom waxtaan ndeem moom. France la ne euh, ci Paris ñu ne ñu ne fi euh, waaye euh, contexte sanitaire bi may ñu ñuy amal waxtaan bi face à face physiquement ba tax na ñu fas yéene jëfandikoo xarala yu bees yi di Zoom kon na Amadou nuyu nañu la. Amadou Sylla maa ngi lay nuyu nañu la maa ngi lay jaajëfal Ibrahim waaw kon euh, bu ko defee euh, waxtaan wi dafa jëm ci actualité bi ca Sénégal yow yaa ngi yëngu lu bare bare ci li jëm ci jàmmi Casamance euh, rawatina itam li jëm ci lu ko suqali kii di Ousmane Sonko ba mu yëkkatiwee kàddu gannaaw ba mu bañu ko teggiwee loxo bokk na ci kàddoom yu gën a dëgër ak li ñi nit ñi gën a bàyyi xel li jëm ci jàmmi Casamance mooy na woy fipp yi génn ci àll bi teg ngànnaay yi

ci forme bi naam na ni euh, way nekk si àll bi la ñuy jënd jox benn temps boo xam mën nañ xëy mën nañ ko tuddee en tout cas xam lu tax rek bu bu kaddu bu mel ni dans un premier temps pour ñun constat d'échec politique euh, constat chaque politique boobu manam c'est vrai amone ay jéego yo xam xeyna amna ñu ko sëkkoon diko di ko dox euh, mais euh, ba léegi daa nekk àgguñu sa maanaam gis ñu loo xam ne war naa dal xel kon nga gis ni échec politique am na loolu foo ñu constaté ko su ko defee nag mu nekk situation bo xam ne kenn demul kenn dikkut donc situation de ni paix ni guerre comme ni ñu koy faral di wax non, am situation bi am na accalmie boo xam ne ñëpp rafetlu nañ ko mais loolu rek parce que tamit bu wax accord de paix day loo xam ay nit ñu ko dafa am ay charte ñu koy tënk charte buy tax kenn nangu et puis mën a si li nga ñu accord am na dynamique bu bees day amaat donc loolu day nekk loo xam ne lu si maanaam processus bi Euh, ba tax na ni tey bu man Sonko yëkkatee kàddu mu mel ni rek euh, dañuy gis ni rek euh, loolu constat bu buñ ko defee nga xam ni xëy na moo jur appel bi. Uh-huh. ñu mën a wax ni rek moom bu ko waxee tamit ñun en tout cas en tant que acteur bi nga xam ne dañuy yëngu si wàllu jàmm ji tamit di ñaawlu wala di gis ni vraiment affaire bi soxla doxul comme ni mu war a doxee accord accord mënul am pour processus de dialogue mënul am. Euh, donc dañuy gis ni kaddu boobu euh, doon bu doon mën na indi euh, mën na saafara mën na am mën na am retentissement ni ñu nekk si àll bi mën nañ ko dëgg mën nañ ko ko nangul hmm. jàmm la ñuy wuti àlakuli alin donc loolu bu doon mën na tënk xeex bi te fexe ñu nekk ci àll bi yore seen gànnaay te tamit di xaar ay solution bu doon loolu doy na leen dañuy def rek dañuy dañuy def leen lu lu lu rafet et puis tamit euh, euh, yaakaar ni wax dëgg yàlla xëy na dina am dina boo xam ne dina ko firi euh, si ay bés di ñëw wala si ay mois weer di ñëw. pour que moom moom ay moom ay écho écho yu favorable. forme lay jël ak yan continue lañ ci dugal. Ah, waaye am ñu jàpp ni Ousmane Sonko woote bi dafa am dafa rax rek récupération politique ndax loolu mënees naa tax nit ñi rawatina way fukk yu nekk si àll bi dégg woote bi. Wow, apre lolo kan le kusen le kan jangan dengan semua amrek. Me antuka nyinga kami danyo nek si si si si doji, doji euh, pendant quand même eh, ay lu tollu ni deux décennies de menono ñun eh, dafa am ñu koy jangate mo xam euh récupération politique lañ ko mëna tuddé ak lu mënta doon hmm. euh mais def na ni mom du ko soxalu lool du ko wax lu ko soxal la tamit Euh, lu ko ñor la parce que boo ko dégloo lu si bëri day wax ni moom xëy na bu amee loo xam ne war na ko boole ak euh, président Macky Sall mooy dossier Casamance bi kon dafa nekk loo xam ne soxal na ko xëy na bu ko soxalee tamit xëy na am na ñoo xam ne ñoom la àndal euh, ñooñu am na luñ ko xelal am na tamit luñ ko information yi ñu koy jox ba tax na ni mu am sañ-sañ yu mel ni di ko waxee noonu kon dañuy gis ni rek fu jàmm mën a jógee rek ak ku ko mën a indi tamit def naa ni loolu da nekk loo xam ne kenn ku si nekk war nga see mën a rafetlu rafet su njort tamit et puis mun ko mun ko mun ko mun ko mun ko mun ko mun ko taaxirlu ba mu xam moom nan lañ nan la ko bëgg a doxalee ak nan lay nan lay jànkonteel ak ñooñu ba euh, loolu li nga xam ne moom la Sénégalais yëpp ba jàmm jooju mën a ñëw Euh, euh. moo xam ne yan condition la koy teg. waaw mais mais mais euh, kàddoom yi mu ngi ko yëkkati ci jamono bi nga xam ni ay fan rek ci ginnaaw gannaaw ba l'armée bi ama amalee ay songu ci biir àll bi ba médiatiser ko sax bu baax ah, ay bastion yoo xam ni ñu ngi ko atribuer way fippu yi yoo xam ni dañ ko raxas vraiment ñu gis communication boobu nguur gi jël jëmale ko ci lu mel ni ñoom ñu ngi ci ay tànku régler problème Casamance bi une bonne fois par les armes bi yoon.

kon da ngay gis ni li ma waxoon sànq rek ne la euh, bu bu ñu constaté ni maanaam euh, politiquement euh, dara doxut maanaam li war a tax dialogue politique bi am doxut comme nu mu war a doxee pour des raisons multiples. yoo xam ne nit mu ne ko expliqué. kon militaires yi ñoom am nañu sañ-sañ parce que militaires yi tamit daa nekk luy seen luy seen taxawaay si réewam mooy aar askan bi aar territoire bi kon nga gis ni dem ba dikk mun a nekk si ay conditions yoo xam ne ay conditions yu dal. kon ñoom bu ñu constaté ni euh, Casamance am na jamono yoo xam ne ay weer yu weesu gis nañu ni doomu aadama ñu ngi leen di faat parce que tout simplement dañuy bëgg a dem ci àll bi wala dem uti dem di dox seen soxla mu am ñu ñuy daan ñu ñuy dajal ñoo xam ne leen doggaale daal di leen téye en otage wala di def di leen def noo xam ne loolu kon loolu responsabilité état la état bi euh, responsabilité am la pour mu mën a dalal ñëpp kon li armée bi def def naa ne loolu rôle armée la dans un pays normal dans un état de droit kon ak nañ la def mais teewul politiquement mu nekk loo xam ne tamit euh, euh, foo ñu wax ci. Euh, rôle armée la waaye arme armée tamit militaire bi euh, ab ab ab ndigal lay xaar euh, day tok rek xaar ñu laaj ko mu ordre mu exécuter côté politique yi ñooy joxe ordre boobu waaw ben, loolu c'est tout à fait normal euh, euh, armée bi moom euh, liggéeyam lay def donc armée bi dina joxe ay observation dina joxe ay information dina xelal ñoo xam ne ñoo yore réew mi di doxal politiquement xelal leen mom loolu la ci am Légui nak bu doon lu leen di lu mu di xelal ak ñu leen di conseillé gis nañu ni loolu lu teggu ci yoon la lu wara a mën renforcer sécurité population yi def naa ni politique yi amuñu ci benn benn benn benn benn choix lu dul maanaam antenne yooyu Euh, def naa ne politique du ñu jóg rek wax ni mais bu ñu waxee rek dafa fekk dina am renseignement yoo xam ne am ko si base renseignement yooyu moo tax tamit ñu agir ok mais yow ci écho yi nga jot a jot euh, après attaque yooyu yan lan mooy écho écho yi yan écho nga jot euh, après loolu parce que xam nañ ni acteur principal nga ci crise Casamance bi de la part de MFDC yan écho nga jot ci seen njiiti rawatina waaw mais xam nga kenn ku si nekk si sa rôle ngay nekk parce que MFDC euh, maanaam du mën a am beneen rôle dul protesté loolu pour wax ni loolu maanaam violation la euh, MFDC si rôle am lay nekk mais nous sommes dans un cadre d'un état état moom daa nekk noonu la moom foo mu fonctionner te état mënul sooxe fii parce que tout simplement voilà benn situation am la te situation bi population ñu si souffrir donc lu MFDC am réserve si les armée bi di def loolu rôle MFDC la mais armée bi tamit nu mu faw am équilibre wala ñu am mais kenn sa lu sa posture tamit ñu jox la ko daloo ko xam mais rapport de mais ngay am yow euh, ci côté MFDC lan lan c'est positif. enfin, je pas le porte-parole de MFDC, mais en tout état de cause, daf leen euh, violation kontaan euh, euh, ñu si loolu seen seen posture la. léegi nag xëy na ñooñu boo leen laajee ñoom directement xëy na ñoom dina am loo xam ne dinañ la dinañ la ko wax de de vive voix. waaw nekk loo xam ne sentiment la mais en tout cas. dëgg nañu est-ce que est-ce que lu leen mën a affaiblir la wala euh, mënu leen affaiblir benn yoon. waaw en tout cas xam nañu ni fi mu nekk ni ñu nekk si àll bi xëy na dañoo sonn parce que rapport de force bi daa nekk amatuñu kon lolu tamit ay situation de faiblesse la yoo xam ne ñu constater, ko buñ ko constater nag donc armée bi tamit bu engagé yenn action yi day fekk constat yi bëri lay nga hmm. xam adversaire bi muy jankontel amatul doole bo xam amon nako amatul pexe yo xam ne am amoon amoon na donc armée bi du def lenn manam pour euh, régler lo xam euh, moko yag mobiliser sur terrain boobu waaw armée bi eh. donte gis nañu ni am na quand ay évolution ci démanteeg dikkalante bi parce que euh, ba ñuy gëj euh, route nationale numéro cinq bi suma su ma juumul moo jógee ba Taanaaf boobu daanaka euh, li ñu for ci yooyu béy mooy ne nit ñi tàmbale woon nañ ci circuler te amoon na ay jamono yoon boobu daanaka nit daaratu fa woon sax daanaka. Euh, est-ce que loolu euh, du wane ni quand même amna ay évolution yu am ci ben patch jëm ci surtout infrastructure yi nga xamné état mu ngi mu koy doxal fofu waaw ben, <coughs> loolu moom il faut nga ñu constater tamit euh, seede loo lo xamné mom la état di def parce que li état di def du côté bobu walu infrastructure walu désenclavement loolu lu fës la lo xamné xam ne la lu lu lu lu lu lu nit mën a parce que hmm. état amna investissement yu bëri yoo def na ci def na si ay jéego.

état tamit du jël xaalisam di ko dugal ci ay investissement yu mel nii te di ko sécuriser donc ça veut dire que y a une logique naam dañuy def loo xam ne moom mooy demande euh, population yi pour que dem bi ak dikk bi mën a mën a nekk loo xam ne lu yomb la uh-huh. mais en même temps mu nekk zone boo xam ne xëy na am na jafe-jafe yoo xam ne yu tënk si wàllu sécurité état day jël ay responsabilité pour que investissement yi muy def noonu foofu noonu euh, mu nekk loo xam ne dina amal njëriñ askan bi donc foog ñu sécuriser ko parce que tamit euh, loolu mooy indi Euh, euh, maanaam dynamique euh, économique dynamique mooy mooy suxal bi. donc ñoo xam ne dañuy béy si àll bi wala dañuy produire si àll bi ñu mën a am yoon yoo xam ne wala ay ay ay ay ay ay ay temps boo xam ne dinañ ko mën a écouler si loo xam ne mooy marché bi. te loolu yëpp boo ko calculé rek am na. Euh, responsabilité état la pour que loolu mhm. mun mhm. euh, mais jamono yi euh, ñu dellusiwaat ci actualité bi Amadou Sylla jamono yi émeutes yi amoon Sénégal gis nañuy zone sud bi Casamance quand même bokk na ci gox nga xam ne am na ci ay pertes en vies humaines am ci biir loolu tamit ñi nga xam ne ñoo fare ci pouvoir bi ñu joxoñ Ousmane Sonko baaraamu tuuma ne ab rebelle la. loolu yow ban jàngat nga ci am ci euh, jamono bi nga xam ne tension yi ni mel euh, mu ngi boy Sénégal. waaw yooyu def naa ni tamit euh, ay accusation la yoo xam ne yu mën a bàyyi xel la parce que tamit situation de confusion bu amee def naa dal moo si am solo ànd ak dal ànd ak tey loolu def si am am na wax yoo xam ne bu ñu ko tamit day nax nax sa xel yi donc def naa jël ko tension bari na fa lool.

lañuy nekk dans dañuy dañuy dañuy dañuy orienté réflexion yi noo xam ne euh, du nekk intérêt askan bi te def naa ni toll nañu koo xam ne foofu wax yi xaw a euh, wàcc dañuy wàcc tuuti comme ça su ko defee ñu xool lan lañu sëkk loo xam ne lan la ñu bëgg a def ñun en tant que sénégalais lan lañu sëkk loo xam ne maanaam mooy suñu euh, mooy suñu bien commun moo hmm. lan lañu fekk loo xam ne mooy suñu destin su ko defee ñu xool nan lañ koy filee ak nu ñu koy doxalee kenn ku si nekk wàll bi nga ci am ak li nga ci wala taxawaay bi nga ci war a def nga def ko si ba mat su ko defee ñëpp mën a am jàmm ñëpp mën a am maanaam feex donc loolu def naa ni bu ñu amulee post yu mel noonu rek ay jafe-jafe rek day indi. absolument alors euh, euh, discours Ousmane Sonko déglu nga ko bu Macky Sall itam naka noonu dañ koy tàmbalee ci Ousmane Sonko ban jàngat nga ci mën a am. waaw Ousmane euh, na loo xam ne ci posture la en tant qu'opposant politique le discours politique le te def naa discours boobu tamit dafa am loo xam ne mën nañ ko ci jàngat euh, parce que ay ñu sekk géopolitique, politique moo xam pouvoir la moo xam opposition la day baax des fois ñu am ben genre intelligence politique boo xam ne dañ koy sëkk euh, mu am dynamique boo xam ne dañ koy mën a sëkk ñoom te yaakaar naa ni

Euh, mu am discours yi mu def si contexte boobu euh, mën nañ ko dëgg et puis dama yaakaar rek mënul def lenn lu loolu en tant que opposant tamit euh, def naa loolu il était dans son rôle donc dañuy xam ne rek opposant moo wax est-ce que pouvoir bi dëgg na ko yaakaar naa ko tamit parce que boo dégloo président Macky Sall tamit daanaka discours am incarné na ko en tant que chef président de la République de tous les Sénégalais du nekk président boo xam ne moom moo uuf Sénégalais yëpp te it mën a am nopp boo xam ne dina déglu loo xam ne mooy euh, mooy jàmbat askan bi euh, mooy euh, mooy mooy soxloom te def naa nu mu ko waxee tamit da xam ni ci posture la nekk te def naa loolu discours yooyu tax na kenn ku si nekk dellu fi nga nekk mu indi daal Euh, loolu daal la ñuy xaar si jëw politique. ci moom waaw mais mais euh, waaw dal bi dal bi dal bi ñëpp a koy ñëpp a woote waaye ba léegi am na ay activiste yu nekk ci euh, kaso bi ah ñoom Guy Marius Sagna ñoom Diouf ah, ak ñi ni mel te seen i ngi bëgg itam ñu libéré leen est-ce que ngir dal bi gën a mën a dal xel nit ñi jotul aussi ñu ñu libéré ñooñu.

nous ñu ñëw ci diaspora bi fii yow nga bokk ci euh, diaspora bi ngay acteur bu am solo sax ci euh, diaspora sénégalaise rawatina fii France euh, ñu gis ne nag diaspora bi tam génn nañu vraiment ak doole keroog place de la République fees Del. ndax dafay rek ni lu Sénégal rek pour diaspora bi wala de cœur e région bi comme ni koy am tamit dañ leen war may nopp saa ci Sénégal.

Euh, nga gis ni lu xew Sénégal dina leen soxal fii euh, lu nekk Sénégal dina leen tere nelaw tamit parce que seen seeni mbokk ñoo fa nekk seen i rakk ñoo fa nekk seen i yaay ñoo fa nekk seen i seen i daa nekk foofu lañu dëkk en partie euh, donte ñu ngi dund fii kon jënd boobu tamit daa nekk message la message la boo xam ne xëy na ñu ñuy gouverner tamit bàyyi nañ si xel xam ni kon Sénégal quoi qu'il en soit si situation bi ñu toll nii sénégalais yi yëpp de tout bord moo xam sénégalais yi nekk si biir la ak ñu nekk si biti kenn ku si nekk am na loo xam ne wala nga ko muy sa naxar muy sa inquiétude def naa ni yooyu tamit euh, si démocratie la am si démocratie lay am tamit euh, d'état état de euh, démocratie la donc yooyu def na ni ñuy gouverner tamit ci ciy bàyyi xel mën na ci am njàngat yoo xam ne moom lañ ciy tiire su ko defee ñu xool seeni politique ñuy doxal ba tax na ni yi mel nii waxuñu bu mu am parce que bu amul tamit daa nekk ba société amul parce que yu mel ni mënul ñàkk si benn société bu dormante du ñàkk tamit du mën a ñàkk si démocratie mais en quoi qu'il en bu amee mu ànd ak xel mu ànd ak tey yooyu yëpp kenn ku si nekk mun nga am loo si jàngat te mën na dimbali sa morom ba lépp loo xam ne xëy na tolof tolof la wala dëng dëng dëng la si maanaam ay yoon yu mën a tëral mhm. nga mun a xoolaat et puis tegaat ko noo xam ne kenn ku si nekk di si mën a gis sa bopp waaye am ñu gis ni lii yaa prétexte la bu dëgër boo xam ni Eh, ci yoon bu doon eh, ci réew buy doxee noo xam ni mooy yoon mooy ni gouvernement bii dafa war a démissionnaire ndax yow ànd ci nga eh, ànd nga ci remaniement guddi yi ñu toll am déet. waaw état de droit la ñu nekk état de droit la bu ñu nekkee faw ñu nangu ni droit mën nga nangu ni mbir di doxee mën nga bañ a nangu li mbir di doxee mais quoi qu'il en soit ñun yëpp ay sénégalais la ñu si benn état la ñu bokk. Euh, léegi nag bu situation yi amee dina am wax yi mën a bëri waaw na gouvernement bi démissionné na diw demee ni loolu yëpp ay wax kenn su nekk xalaat nga wax mais foog ñu delloo si xel yi encore une fois xam ni ay institution yi suñuy institution lañu waruñu leen néewal doole dañ leen war a bàyyi xel parce que euh, bu ñu leen bàyyi xel rek mooy maanaam euh, dañuy gis yenn état yoo xam ne te yenn dëkk yoo xam ne te état amu fa tey Sénégal def naa am nu aada boo xam ne ak tradition yoo xam ne loolu lu yàgg fi yàgg am fi et puis moom lañ ko nawee si àddina euh, waaw mais est que état tamit ni euh, ni ni ko askan wi di bàyyee xel est que état tamit du réciprocité boobu la war a am parce que dégg nañu kàddu njiitu réew mi ca njalbeen ba ba muy accordel France 24 interview naan euh, mbir la boo xam ne daal moom du wàccee boppam ba toll foofu est-ce que xeebu toon ay bi laq daay bi ci ca ca wala amul xel boo xam ni attention bo xam état bi waron nako ko bàyyi askan wi. non xam nga xam nga xam nga du lolu lolu def naa ni euh, lu nekk ak contexte am la tamit xëy na moom contexte bobu mu ko waxe contexte la bo xam xeyna mu non la na waxee yu mel non mhm. bon gis nañu ni après quelques jours ak quelques quelques temps bu situation bi amé tamit mu am benen posture beneen ah. taxawaay. Hmm. kon duñ ko mën juger jugé si benn contexte parce que contexte bi boo ko bëggee juger daal di nga def jugement boo xam ne xëy na maîtriser woo éléments yëpp maîtriser woo tamit ban état d'esprit la nekkoon donc da ngay gis ni loolu tamit dañ ciy bàyyi xel donc boo ko déggee tamit nu mu waxee tout dernièrement mais contexte la situation la mu am posture boo xam ne moom lay dégager donc yooyu yëpp tamit euh, foofu politique moom bu bu fa bu fa xel amut rek bu fa euh, intelligence bokkut rek daal nekk doonatul politique

def naa ni ça devient l'intolérance et loolu dans un état de droit dans une société def naa yooyu ay jafe-jafe lay indi ah, ah. Euh, kon euh, Amadou Sylla yegg nañu ci euh, cappaandawu waxtaan bi ñu lay gërëm di la sant di la bàyyi nga tàggoog mbokk yi waaw maa ngi lay gërëm di la sant si si si waxtaan bi tamit di baalu ak tamit ci déglu xam naa dañuy faral di wax rek lamiñ buy wax moom day wax rek nopp buy déglu tamit daa nekk euh, mën na ko neex mën na ko bañ a neex mais quoi qu'il xam ne rek kàddu moo demee noonu euh, donte am na loo xam ne xëy na buñ ko déggee du am dina am lu muy def si ñoom ñu xam ne rek cadre doomu aadama la boo xam ne matut waaw ñuy euh, nuy mbokk yi di leen ñaanal di ñaanal ñi nga xam ne ñu génn àddina ci fitna bi yàlla xaraleen àjjana te it ñu leen di ñaan itam ñu dal fitna bi ñu teg ko ci suuf ndax te sénégal nag war tal warna na mérité leneen lu dul euh, fitna yi ni mel euh, kon amadou sila ñu lay gërëm di la sant ci invitation euh, ci li nga nangu invitation bi ñu jox mbokk yi di dajé ba benen non inshallah ñi sekk waxtaan ak wa diaspora bi di leen gërëm di leen sant ci tewlu bi di leen wax ba benen non inshallah